mbir yi ak naka garde euh, rapproché bi nga xam ne sax ñu ngi leen jàppee Dakar euh, arrestation arbitraire naka maître Abdoulaye Tall daal di tuddee ñoom seen avocat dinañ ci dikkaat réagi euh, baax Issa Ndiaye moo jumeau baayu Mam Binta Ndiaye nuyu nañu la bu baax bébé Mam Binta ay ca ñu koy door wax yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci lañ doon waxtaanee milliards subvention ba nga xam ne état du Sénégal dafa bëggoon jàppale euh, askanu Sénégal ci njëkk yu cher dund gu metti gi loolee nag waa FMI dañ ne ko teg ko ci suuf loolu moom dootul dem kon nag mënees nañu xaar fi ñu jëm njëkk yi yokkuwaat ñu ngi ko doon waxtaanee sànq waaye yéenekaay bi également dafa ñëw ci audition Ousmane Sonko nee nañu nag moom Ousmane Sonko euh, gannaaw ba ñu ko posé ay questions yenn yi mu tontu yenn yi tontuwul dañu ko wax mu def ndax mën nañ ko defal test dafa lànk ba tëdd suuf ne doxul ci loolu ñu waxtaanee également ci mbir yu nag Ousmane Sonko ba tey euh, section de recherche bu Mbour de mujj nañu a teg loxo euh, garde corps yu euh, Ousmane sonk yi nga xam ne ñoon maanaam amoon ak xiicoo mballoo ci nemmeeku tuur gi foofee sa ciiki mm. def naa noonu la dëkk bi tudd sa jaas en tout cas mu jël leen teg loxo téye nañu leen Ousmane Sonko euh, ba moom Ousmane Faye am dina ci ay kàddu manko wattu Sénégal nee na nag euh, ci garde rapproché yooyu nga xam ne Ousmane Sonko dañu leen teg loxo c'est dans l'ordre normal des choses ndax dafa am ñu demoon porter plainte rek euh, donc nag ñu leen waaye nag mun mënoon na gën a rafet bu ñu xalaat bu gàtt wàllum accouchement yi nga xam ne dañu koy defee à domicile hmm. ndax peut-être amuñu lu leen yóbbu wala amuñu bërëb bu fajukaay wala ñu xam ne nuñ koy maanaam dëkk ba peut-être yoon ba jagut jàppale ne kon loole doom na lu ñu nemmeeku sa euh, kolinto yéenekaay bi dikk na ca baisse annoncée de la location yéenekaay bi également euh, ñëw na ci di tribune nee na wàññi tekk location bi daal est-ce que dina yomb si jamono ji nga xam ne ñu ngi naan soo moytuwul njëkki dafay gën a yokk euh, kon nag locataire ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi est-ce que dañ nangoo wàññi seen i njëkk yi ni ko président Macky Sall ah, dinañ ko wàññi de ñeenti weeru caution bi ñuy laaj nee nañ dootul amati en tout cas loolu moom dañ koy bañ fu mu nekk nii. ñaari weer caution rek doy na sëkk. mais xam nga xool bu demee ba naan moom day jël weer weer mu ngi noonu. en tout cas courtier ba na loolu mooy liggéeyam. Euh, te loolu si lay euh, dóor waar moom nag euh, weeru lëmm lay laaj ñaari sa des boroom kër gi te bu génn jotee nag soo moytuwul sa sa xaalis soo ko jot. Vox Populi dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy face à face ndax doyen des juges bu Ousmane Sonko moom nee na. test ADN bi xel xalaatul mu koy def en tout cas accusation yi ñu ko teg ci deram moom lu mu gën a insister moo di mbiri complot la te lu ñu ko laaj ci lu mbirum complot bi andi na ci ay leeral trois heures la euh, maanaam ñetti waxtu la audition bi daal di nag euh, maanaam tënku si diiru ñetti waxtu laajax tontu bi en tout cas noonu la demee ses avocats nee nañ fi mu nekk nii mbir yi daal wax fa dëgg neex yàlla amatul sax layam layam yi bi yeboo ñu def ko benn non lieu mm. jël mbir yi suul ñoom nee nañu ak lii Ousmane Sonko tontu foofu lii dafay firndee ne kon dossier bi vide la def juridiquement euh, euh, te nag xam naa bi dossier politique la waaye nag bu dee wàllum yoon rek euh, dossier bi moom vide la def donc non lieu la ñuy xaar moom maître Bamba moom moo ko wax maître Bamba Cissé avocat Ousmane Sonko mon audition s'est très bien passée en tout cas c'est c'est très bien déroulé moom Ousmane Sonko loolu la xam ne nee na ko fa dëgg neexal audition bi ni mu aw na ci yoon donc mu amul lu muy tiit le vrai journal dafa jëm ci mbirum Sweet Beauté ñu ne déetuwaay force spéciale ñu ne déetuwaay ñu ne rebelle fii ci doon Dakaaru ñu ne déetuwaay bu mujj bi euh, euh, la nga xam ne moo xew sa ciiki euh, nee nañ Sonko affaire bu ñëw beneen ñoo dooleeku sa en tout cas affaire yi dafa tegloo nee nañu nag mbiri hasard la tombee waral ay gaaf wala rek dañu ko sible yéen bi di le vrai journal en tout cas moom foofu la génne tey jii ñu euh, jàll ci le témoin moom dafa dikkaat ci audition ba tey daanaka quotidien yi ci audition bi la ñu dikk euh, mbiru euh, Sonko ak nag jàkkaarloom ak Mahmat Diallo doyen des juges moom dikk na ci nee nañu nag moom le témoin nee nañu doyen des juges si boppam Mahmat jàlloo nee na bureau bi bi gars yi duggee da doon xeeñ saafara donc moom ci boppam nangu woon sa joxe loxo nee na mbiri comme làmb ndax cumbukaay yi daal nee na en tout cas nee na des saafara dans le bureau du des juges Mahmat Diallo moom ci boppam bëggatu woon sax joxe loxo bi waaw daale les lee mais pour éviter un mauvais sort. Hmm. xam naa da doon ba ñu nuyu ko peut-être nag daal di koy <laughs> nee na mbiri daal comme mbir yi ni ñuy def euh, euh, euh, laata ñuy dem làmb ja face a face boobu nga xam ne mbër mi day ñëw bande loxo yi. pour bañ a nuyoo nee mbiri comme làmb laa lox cumbukaay yi non non bul comprendre <laughs> Ousmane Sonko dañ ko escorté ba këram takk der yi ñoom ñoo ko gunge en tout cas yéenekaay bi foofu la génnee en tout cas kon mbir amoon ay saafara. sur quotidien Ousmane Sonko euh, euh, face au doyen des juges en tout cas ñetti waxtu la ñu fa def euh, Dakar en mode zen kon nag démb li nit ñi doon tiit yëpp yaakaar naa ne am ci woon donte takk der yaa ngi fi woon waaye nit ñi ñu ngi doon dox seen i activité tranquillement naïsement comme ni ñu koy faral di waxee minute de l'audition donc mu ngoog yéenekaay bi di Source A fa la dikkee péripétie d'un trajet en tout cas après avoir été dégarni de sa garde rapprochée comment l'opposant Ousmane Sonko a pu rejoindre son domicile mu ngoog yéen kaay bi dikk na ci gannaaw ba moom ba muy dem yóbbaale na ay garde rapproché ba muy ñibbi yóbbaalew leen moom ñaawlu na ko nee na nag ak singal yi lay waaj a ndiru secret de l'instruction violée maître Bamba Cissé nee na euh, ce que Sonko a di au doyen des juges moom dikk na ci euh, ak ses chez Sonko euh, jàppale ne kon Barthélémy Dias ak Déthié Fall ñoom si suba gi dañu bëggoon dem Euh, kër Ousmane Sonko waaye nag dañ leen ko tere foofu ci kër góor gi waaye terew dañu koy gunge Abdou Mbow mu ngay menacé nee na intimidation bi wax dëgg neex yàlla dootul jàllati fii ci réewum Sénégal euh, réew mi quotidien dafa ñëw ci réew mi people ak génn àdduna bas jaxate euh, moom mi nga xam ne yaakaar naa ne bëggal nañu mm. yàgg na dindi ay stress askan wi loolu nga xam ne moom la doon bëggale askan wi yàlla na ko yàlla def ay foofu nga xam ne foofu la ñu ko denc maanaam ci këram gu mujj mm. suuf oyof si kawam Euh, te kenn bañ koo jiitu si bàmmeelam yàlla xare ko àjjana jéggal ko ay bàkkaaram ci le mandat dafa ñëw ci audition Ousmane Sonko ak nag le doyen des juges nee nañ enfin li ñëpp doon xaar am na Sonko séquence de gêne d'un film en tout cas d'audition euh, dikk nañu également euh, ci yenn ci ay laaj moom ci boppam jëm ci ndax mas naa sékk jaxasoo naa ki nga xam ne moom mooy Adji Raby Sarr nee nañ laaj boobu bi ñu ko laajee dana juge bi boo ko waxati ndax wax fa dëgg ne yàlla dafa xeeblu jàkkaarloo kilifa gu doy ni man di ma laaj ndax mën naa jax sox soxna soosu bu ma ko waxati ah, bi ñu ko waxee test ADN également daf ko bañ ba tëddi suuf nee na wax fa dëgg loolu xeeblu na euh, l'info dafa ñëw si édition Ousmane sonk ba tey euh, le calme avant la mais nag pour ñu procéder ci audition yi mën a dem audience il faut am euh, yenn enquête préliminaire yoo xam ni foog nag Sonko joxe ci ay réponses de waa il faut mu nangu ci joxe ay réponses en tout cas woon tontu bu ma ko waxee foog foog mu collaborer xam nga la moo tax. parce que ah. loolu mooy avantage am. Mm-hmm. parce que loolu moo koy leeral parce que kilifa la dañu ko woo ci lëf loo xam ne. gàkkal na ah. ko. moo nga taxaw pour set ci sawar ci procès bi donc foog mu coopérer pour mën a set gi gën a mën a gaaw warut a bañ test ADN bi. warut a bañ mm-hmm. répondre ci certaines questions. parce que loolu. parce que xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Sonko yéeneem. ak yéene ñu bëri Sénégal. waaw mooy mu jiite Sénégal. Mhm. pour être un président de la République am foo ñu war a teewal am foo ñu war a représenter ak li nga war a doon ci réew mi am na yoo xam noo ko bañ forcément y a des questions yoo xam foog nga répondre ko. Mhm. ça c'est test bi test ADN bi mu bañ aussi bëggoon naa journal bi approfondir. lan moo tax mu bañ est-ce que non est-ce que test ADN moom ak Adji wala test ADN bu jëm fan bu jëm ci kan jubluwaay ban test ADN la quoi. vu que ne ay prélèvement am na. parce que ñu defoon ci ci Adji Sarr. am na benn côté si dikk. Mhm. peut-être moo tax ñu bëgg a xool. parce que war nañu xam quoi test ADN moom ak kan. parce que souvent li ñu xamoon xam nga xam nga bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy interpréter souvent dañuy bàyyi wàlla xel. Mhm. sama mbokk yi nga xam ne ñun ay kaw kaw lañu. Mhm. du ñu comprendre yenn yi test ADN. Euh, souvent dañ ko doon dégg rek ci euh, leeral. définir complètement que kii mooy papa kii waaw mais comme test ADN ci accusation viol jubluwaayu test ADN bi lan la hmm. dafa am doom bu judd wala amul doom bu judd hmm. waaw est-ce yegg am na ndax yegg amul ndax yegg amul hmm. tout ay question la yoo xamante ni bii moi je pense pour moom mu nekk à l'aise waaw ndax ndax fi mu jëm moo tax il faut mu répondre ci ci ci ci yenn question yi foog nga coopérer en tout cas yéen kaay bi di euh, libération également dikk na ci minute d' bi nga xam ne moom moo am Ousmane Sonko nee na complot la en tout cas bu dee loolu laaj nañ ko ci moom complot bi la teg euh, baaraamam nee na mbiri politique ka ca moom moo sa rax euh, joxoñ na baaraam nag wax fa dëgg neex yàlla gendarme bi ñuy wax kon euh, rijaal ay confidence yi nga xam ne am na lu mu ca wax ba noppi tiire na ci Serigne Bassirou Gueye ma fi nekkoon procureur ndax nee na euh, moom ci boppam moo fabriqué benn PV bu kenn xamul fu mu jógee Mamour Diallo maître Pape du Sow en tout cas ñooñee Ousmane Sonko tiire na si ñoom nanguta nag tontu lu dul kon nag mbirum complot la doyen des mu ko waxee ndax mën nañ jël def benn prise de sang si yow ngir test Sonko da ne ko xel xalaatu ko dama joxe sama deret en tout cas mu ngook euh, l'exclusif secret d'une audition test ADN les euh, le ji propose Sonko en tout cas doyen des juges loolu proposé Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa daal di euh, bañ yéenekaay bi foofu la dikk procédé scientifique et médical bi nga xam ne moom mooy déterminer les caractéristiques du sperme trouvé dans l'anatomie de Adji Sarr mooy li nga doon wax sànq en tout cas bu fekkee def nañu prélèvement si euh, Adji Sarr gis ne euh, amoon na sperme maanaam manju bu ñu fekkoon ci moom loolu moo tax ñu bëgg def test ADN pour xool loolu fu mu jógee moo ko moom wala moom ko en tout cas yéenekaay bi euh, foofu la euh, loolu moo tax ñu ne peut-être moom moo tax ñu laaj test ADN bi L'As Quotidien Sonko refuse le test ADN en tout cas nangu ko euh, nee na xel xalaatul muy def test ADN critique également Sonko refuse le test ADN te yéenekaay yu bari foofu la ñu génnee l'évidence foofu la génne Sonko en vainqueur en tout cas démb doxalinam gi nga xam ne doxalin na ko démb dem wuyu ji tranquillement dellu si waat loolu ñëpp dañ ko rafetlu yéenekaay bi daal dina ci dikk l'enquête également moom nag Sonko réfuté accuse en tout cas audition bi euh, démb yu euh, yéenekaay yu bari si la ñu dikk audition au fond du leader du PASTEF Sonko euh, dafa bañ ba tëddi suuf refusé catégoriquement ne du def test bi mbirum question yu jëm ci wàllum viol bi sàkku na kam sàkkul Ousmane Sonko dane xel xalaatul ñu muy nangu di tontu ci loolu mm-hmm. li mu mën a tontu moo di complot la en tout cas lépp lu mu jàpp ne complot la te ay preuve mën ko andi ci complot bi démb wax na ko euh, moom nag lancé na ay pic doyen des juges mi nga xam ne ba noppi refusé totalement ne kon du tontu yenn ci ay question yu procureur Amary Faye euh, procès bi procès verbaux bi ont été euh, falsifiés donc am na procès yi mu PV yi nga xam dafa jàpp ne dañ ko falsifié loolu doon joxoñ baaraam Serigne Bassirou yéenekaay bi daal dina si dikk Ousmane Sonko ba tey ci Direct News ah dafa mel ni huit heures jot na audition leader bu passé Ousmane Sonko refuse de test ADN yéen kaay bi dikk na ci également détaillé ci lii waral moom mu tax mu euh, bañ li nga xam ne moom mooy test bi alerte foofu la génnee arsenal mystique digne des cumbukaay euh, meuble le décor en tout cas démb nee nañu euh, mbir yi cumbukaay yi safoon na sàpp <laughs> démb sa sa sa bureau doyen des juges en tout cas téere yeex saafara yeex safoon na sàpp dem. ku nekkoon ca arène bi. ante mbiri daal en tout cas nee nañ comme ku jëmoon comme làmb. Ah <laughs> Sonko ne baisse pas les bras en tout cas bés bés yéen kaay foofu la génnee. Oja Oja dafa ñëw ci ngi ci euh, Ousmane Sonko ay garde rapprochée bi nga xam ne tribunal bu Dakar lañ leen jàppe daal di leen yóbbu jamono joojee moom mi ngi ne ca biir ñu koy auditionné jàkkaarloo doyen des juges euh, nga gis nag procureur bu Mbour moom mi def déclaration ne cooki ciiki en tout cas góor yaa ngi nii ñu leen di. cooki ciki cooki ba sa ciiki. waaw cooki ciki waaw procureur bu nguur dem def déclaration man quand même. Ah, ah. leen def man ànduma ci. c'est pas élégant de procureur am na droit arrêté ku ko neex am na droit indil leen ma nanga ak nangam. waaye na rafet mais waaye. comme démb yóbbu na ay ñooñu ñoo ko yóbbu. Hmm. mais nañ bàyyi ba ñibbi ñu indil leen convocation. loolu ñu leen wuy moo gën a rafet hmm. mais fekk leen foofu taxañ leen bàyyi fa waaje kese il a fallu que gendarmerie ko. dinañ ci ñëw ci yi Mamadou Fofana nañ ko commenté alors eh, El Hadj moo gën a fës ci xibaar yi. audition Ousmane Sonko mi lànk li nga xam ne moo di prélèvement ngir def test ADN maire bu Casamance toujours ma nga jàpp ca complot politique gi ñu bëgg a teg ci kawam ndoddam dossier bu vide. ak euh, ñàkk a tontu yenn ci ay question digganteem ak laajkat bi lu jëm itam ci ay garde reproche am dañu leen a jàpp yóbbu leen buur ca cukki ci ba mooy li ko sabab maître Abdoulaye Tall ni kompalolu ak arrestation arbitraire waaye daañu topp yëf yi ba ci ci cuppaandaw ja dinañ wax itam euh, ci euh, su sanu sanu fili mhm. benn village la bu nekk ci commune bu juddu bu ca département bu Goudomp askan wa amuñu sax lu leen évacué